gars yi complicité ñaari nante yi di nantepp 2002 ak nantité bi nga xam ni mooy bu 2024 bii ñu toll di ñanco international sans waa ji moo ko alaaji Ousseynou Diouf ngeen gis leen danañ ci dikk ci lu yaato yaatu gars yi entraînement bi comme tuq sa bënn saañ ba réer ndax gars yi yëkkati nañ ay poids laal ay weñ laal pétal laal welaw loole lépp nag mu nekk loo xam ne mbégte la ci équipe nationale Sénégal ñu bàyyi gars yi ndànk-ndànk ñu yéeg ci biis bi nga xam ni mooy biis bi ñu war a yóbbu euh, fële nga xam ni moo nekk terrain d'entraînement ba wala boog ca saal ya gars ma nga noonee Abdoulaye Seck ak ki li nga xam ne mooy Pathé Ciss kii nag ku ko xamul mooy garde corps équipe nationale Sénégal gi yëpp am na garde corps yu bari nag waaye mooy ki nga xam ne daanaka mooy leen tête de boo ñëwee entraînement xàmmee nañ ko bu baax a baax moo ne ca kanam Tony Silva Tony Mario Silva yéen ñi ko xamul di ay tout tànk moo nekkoon gardien bi nga xam ne moo doon gardien CAN bis final bi euh, Sénégal doon daje ak équipe bi la nga xam ni moo nekk Cameroun. Abdou Diallo moom it ngeen gis ko noonu ak ki nga xam ne moo yor wàllu pajum euh, fédération Formose Mendy moom it ngeen gis ko ci ginnaaw ki nga xam ne daanaka mooy monsieur le garde corps nga xam ne taxawaay am na solo Maurice Diaw. en complicité donte moom it euh, wolof yi kasaw kasaw lay def Cheikhou Kouyaté ngeen gis tamit gardien international sénégalais bi. daanaka moom Korfañ ba mu doon garde corps na ci def ndànk Mayel mooy régler situation yi ñanco international la ngoog sama waa ji moog El Hadj Ousseynou Diouf gars yi lu ñuy teg ci Sénégal Côte d'Ivoire bi loolee leen ko dencal ba boobee nga xam ne daanaka ñaari international yi wax dëgg yàlla seen taxawaay ak seen complicité loolee dugg na ma neex na ma loole neex na képp koo xam ne yaa ngi suivre bi la seen kay abonnement yi bu leen ci des ginnaaw yow mii di ma seetaan vidéo bi demagul fenn laalal sab abonnement ndax abonnement boobee dana tax lépp lu ma mën di duggal nga mën ko laal ndànk nag gars yi maa ngi biir saal yi nga xam ne daanaka fi mu toll nii kii ma ci am nag moo nekk di la di Nampalys Mendy ma ngay ca biir di gàddu weñ yaag kasaw kasaw yaag yooyu xam naa te ji bëgg naa gaañ boppam ci li nga xam ne moo nekk ay weñ euh, kii nga xam ne mooy Moussa Niakhaté moom ngeen gis ko ca vélo yi nga xam ne moom lay cëpp cëppee ko wadd wadd yi ndax vélo yi baax na ci moom bu fekkente ni amoo espace boo xam ne mën ngaa daw cinq sur 5 mën nga gaañ sa bopp ci vélo bi lu mat 10 minutes ba 15 minutes bu ko defee boo demee ci ñax mu tooy mi day fekk sa yaram tàng nga boole koog loolu wàjji na tànk yi ndànk-ndànk moom moomee di Moussa N Ndiakhaté di défenseur centrale bu Sénégal kile di international bi tamit ngeen gis ko mu nekk ki nga xam ne daanaka mooy Nampalys Mendy moom it ñu bàyyi leen ngeen gis taxawaay bi nga xa ne am na ko tey jii ci li nga xam ne mooy boobee entraînement ñu coppati loolee te ñëwaat léegi